point mm-hmm. yoo xamee ni mu ngi ci laaj bi mm-hmm. mais tamit mm-hmm. dina nekk ci jéem a tontu bi d'abord dañuy personnellement soutien total à Mohamed Gueye bu journal Le Quotidien ak Pape Moussa Traoré du directeur de publication bu yéenekaay bi di Tribune je le répète soutien total ci ñaar ñooñu en tant que journaliste muy Mohamed Gueye ak Pape Moussa Traoré que je connais ñoom ñaar ñëpp euh, mais dafa am mais xam nga luy mais bi sama conviction lay wax tey merewuma état wala police wala gendarmerie xam ko ma mere correct lay mere bi nga tudd mere CNRA mere corporation bi ci laa bokk te fu ma bokk am naa sañ-sañu wax la ma ca xam wala la ma ca xalaat li tax may mere correct mooy Euh, démb te tombé waral ay gaaf fii laa toog ci plateau bi ci waxtu bi wax la ma xalaat ci information ba nga xamee ni nit ñi ñu ngi koy joxe sama xalaat boobu varié li tax varié ma gën cee am sukkandiku ci code de la presse li tax may mere dinaa ñëw ci code de la presse boobu ak li tax ma ciy sukkandiku pour jàpp ni sama xalaatu démb sama waxu démb varié wul ci lu concerné benn sujet boo xamee ni moom moo indi lii nii yëpp li tax ma ne dama mere CORED mais CORED fan lañ nekkoon bi nga xamee ni coow am na avant coow di am am na ay information yoo xamee ni génne nañu ko yoo xamee ni man de personnellement journaliste qui exerce ce métier depuis quand même pas mal d'années ñu ngi deux mille vingt quatre naanaaka deux mille ba deux mille vingt quatre ñaar fukki at ak ñeent la ñeneen jiitu nañ ma ci métier bi ëpp ma ci expérience waaye dañ maa jàngal ci métier bi li ñu woowee éthique ak déontologie naa ci ñëw léegi li tax may mere correct mooy dafa am liñ naan artu bu correct am sañ-sañu defoon laata sax police wala gendarmerie di am ci ñun yoon wala di ñu woolu artu mi mooy lan correct gis nañ fi barki Demba Ndiaye mu génn benn communiqué Aïssatou Diop Fall euh, la nga wax pourtant boobu plainte amagul wala amul woon xaw ma ndax mujj na am waaye amul plaint sur une affaire mën naa ko jàppee une affaire privée entre ab soxna bu nekk ci journalisme depuis assez longtemps buy tontu benn technicien bu nekk ci métier bi depuis assez longtemps daanaka mu jaar ci réseaux sociaux yi ci YouTube yeeg site d'information CORED daay bind leetar daanaka doon juge doon doon wax ma sax avocat doon procureur doon juge ba condamné j'ai pas voulu m'épancher sur ce sujet là parce que lañ ca bind lañ ca wax mën naa ci d'accord mën naa ci bana a d'accord CORED na mu mënee def loolu lu ko teree mu defoon démb ne ni yéen ñi bind ci mbir mii xaar leen ba am ci lu leer parce que man en tant que CORED lan mooy CORED nu ñu woowee CORED ñu ne la euh, c'est le conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias au Sénégal conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias au Sénégal maanaam képp kuy média presse télévision rajo presse écrite site internet d'information laataa kenn di wax bu yow da ngay am xool booy xool yooyu ñooy ñëpp am kuréel goo xam ne da nga ànd ak ñoom xool ñooñee ñëpp Birahim Touré bu waxee lu mu wax warul wax ci télévision bu may génn plateau bi may jot message ku bokk correct ne ma euh, appelle nous wala on t'appelle parce wax nga loo xamee ne waroo ko wax en tant que journaliste ndax lan principe nangam ak nangam éthique ak déontologie li tax may mere correct ak kuréel yu yu ni mel ba ci SEDEPS mi nga xawee ne moom moo jiite entreprise de presse yi tey kan la ñu woolu ab journaliste Pape Moussa Traoré ndax lan directeur de publication code de la presse mu ngi ci journal officiel 2017 moo wax ne ni. dafa am ñi ñuy woowee ñoo xamee ni pénalement ñoom ñooy responsable ci entreprise de presse bokku na ci directeur de l'information directeur de publication euh, ak yu ni ñu woo Mohamed Gueye mais ñoom ñaar ñëpp <laughs> dañoo am patron ñoo am ñu leen jiite te lu ñu bari xamul et c'est c'est l'occasion également joxe information boobu je vais pas dugguma ci di suufeel suñuy naataango journaliste je l'ai dit et je l'ai répété soutien total mais yenn saay nit bind directeur de publication ba directeur de l'information sa patron ne la dindil bindal ma nangam damay sànni bàyyi ko noonu di nga bind sa patron ne la dindil wala nga sa patron ne la bindal nga ne ko binduma ko du yowee responsable man maay responsable comme dem nga ba dénk ma wóolu ci lañ ma dénk te bàyyi ma ma liggéey selon ñaar yi di gouverner suñu métier muy éthique ak déontologie mën naa nekk en désaccord avec même les anciens may nuyu sampap pap euh, ci ci ci ci wàllu woowu te di ko gërëm également souvent ci waxtaan ba ñuy waxtaan ak moom muy am lu mu may gindee bokk boole ceeg la ma xam wala la ma jàpp ni xam naa ko ak la may jàng Euh, ma dellu ci très rapidement li ñu wooyee éthique ak déontologie ñu ne la la déontologie du journalisme c'est l'ensemble des normes auxquelles les journalistes devraient au minimum s'astreindre ñu tibb ci juróom vérité rigueur exactitude ne la intégrité équité imputabilité boo ubbee Wikipédia ubbil kii ñu wax la ni loolu moom mooy li ñu woowee éthique ak déontologie ñu ne la déontologie du journalisme c'est l'ensemble des norme maanaam lépp loo xam ne ëmb na journalistes yi te ñu war a am minimum luñ ci mën a xool jàppee ko mooy lan vérité boobu rigueur bi exactitude bi intégrité équité imputabilité mais ci biir code de la presse li tax ma ko doon jën ñu sànq nga xamee ni daf ñëw tënk ñun ñëpp neew ñu amoon sañ-sañ yow police wala gendarmerie woo journaliste rawatina ci lenn ñu ne la ci li soxal mbirum yenn ci ay xibaar yooyu joxe d'abord ñu ne la l'État assure à toute personne vivant sur le territoire national le droit d'être informé maanaam ñëpp am nañ sañ-sañu ñu informer leen ñu mën a am source yu jëm ci wàlluk information ak moyen d'information te la liberté d'informer, mais ñu ne la dans le respect de la loi. jeune ne la, jeune ne fais le procès d'un de, de, de, journaliste ou de la presse. mais am naa sañ-sañ wax ci sama xalaat ci la may dund ci la may yëngu ci la ma jàng ci la may ca lañ liñ naan ca lañ may fay salaire fin am naa sañ-sañu ne ni lii d'accord naa ci wala lii d'accord ma ci du ma dellu si ci li ma waxoon démb ni d'accord ma ca la ñu bind man d'accord ma ci wax naa ko fii et je l'assume je vais pas faire dans le corporatisme boo xamee ni da nga naan non journaliste rek lépp lu mu wax rek man dama koy défendre non je le ferai pas personne ne pourra me le faire xam nga lu may wax mooy la ma gëm moo xamee ni su ma génnee fii dinaa mën a siggi ni maa ko wax et mën naa juum nag mën naa juum mais man je ne suis le corporatisme boo xamee ni da nga naan non non tout ce que le journaliste c'est bon amul problème mën nañ leen bañ a critiquer saabu du fóot boppam d'accord euh, li ñu naan le linge sale se lave en famille mais day fekk ñu boole la ci wala nga bokk ci tey bokk naa ci famille journalistique am naa sañ-sañ kon wax ci parce que dañ ko jël teg ko sur la place publique li leen dal ñaanal ñu ko kii que ce mën nañ ma woo suba parce que je suis directeur directeur en même temps directeur de l'information te pourtant tey keneen peut-être plus haut placé du ma ko tudd xam na boppam mën naa def loo xamee ni mais bu ñu woo man la ñu woo ma jàmbal dafa yónnee benn tweet ne ni sama soutien total ci Mohamed maa ngi nii Paris mais maa ngi dagg sama voyage pour ñëw Mohamed Gueye ma jàmbal la ko def fa yem non man fa yem du ma euh. critiquer kenn non ñu ne la mm-hmm. léegi nag ci wàllu mm-hmm. principe et valeur la mm-hmm. presse est libre cette liberté s'exerce dans le respect de l'éthique de la déontologie et des lois et des en vigueur ñu ne la ci mbir moom nga xamee ni moom mooy presse bi nga ne la nga sañ ak la nga warul sañ ñu ne la journaliste ak technicien des médias dañu war a am respect ci dignité humaine éviter toute allusion par le texte, l'image et le son à partenance ethnique wala morale nationale d'une personne religion mbirum diine góor laam jigéen la ba ci sax ci biir code de la presse bi loo xamee ni beneen débat la orientation sexuelle am maanaam ci biir code de la presse xamal nañu ni yow journaliste bi wala sax wax waxul homosexuel góor jigéen loolu beneen débat la parce que tout le monde n'est pas d'accord moi y ñu ne la waroo ci sax wax ci ay mbirum discrimination mais li gën a yéeme ñu ne la le compte rendu par le texte l'image et le son de la guerre acte accident wala catastrophe day am limite dans le respect du secret défense code de la presse moo ko teg suñu kaw ñun journaliste génnuñu ci donc en grosso leen comme ni ko état de fait même pas état parce que même ça c'est un autre débat naa ci waat mais euh, jàpp nit woolu la am nañ sañ-sañu wóolu leen parce que ña leen waroon a wóolu defuñu ko nguur gu bees gi Birahim deux mois lañ fi def mais am na ñu jàpp ni nga nga baal ma rek mu continuer ci ci laaj bi. am na ñu jàpp ni dugal ma ci <laughs> mais dugal mais danga may tontu rek am na ñu jàpp ni acharnement la contre Sen TV donte deux mois lañ fi def mënuñu ñàkk wax également si loolu parce que kenn ku nekk sa gis-gis wax nga gis-gis bi ñu ci am par rapport ak taxawaayu journaliste jëm ci éthique ak déontologie mais am na ñu ko jàppee acharnement contre euh, la Sen TV. Sen TV du Sen TV rek. Mhm. du même pas Sen TV c'est mhm. tribune. Mhm. ñenn ñi jàpp nañu ni Bougane la. man la ma jàpp ci ndax Bougane la la ñuy la ñuy a topp wala beneen mbir du ma ko wax fii ci télévision walla ci rajo am naa ci sama sama sama opinion bopp. du ma ko wax mais y a pas que tribune. le quotidien dañ ko ci téye ci loolu. mais li tax ma ne correct il faut qu'il soit conséquent mooy tey bu ñu woo tribune. woo journal le quotidien kese nañu ubbi leen réseaux sociaux yi xool leen page YouTube yi xam nga lan moo ma metti mhm. et j'ai le droit de le dire c'est mon opinion ma toog ci plateau doon journaliste dafa am ñaari journaliste ki ko jàngee école di ko exercer ak ka nga xamee ni da ko jàngee ci biir rédaction suñu papa yi dëgguñu ci école boo xamee ni dañ naan école de journalisme te ñooñu dàq journalisme téeméeri yoon téeméeri yoon mais je l'avais dit ci bañee jàpp Pape Alé Niang je le dis encore aujourd'hui suñuy pape yi man day fàttalikuwuma gisuma fenn fu ñu bindee ni jàppoon nañu ci seeni jamono suñuy pape yi ak suñu yaay yi journaliste nangam ak nangam ak nangam woolu nañ ko ci kanamu police fàttalikuwuma ko binduñu ko tamit fenn ci wàllu li ñu woowee histoire su demee ba tey mu am ñaara mën a ne ñan dafa am lu changé soit journaliste a changé wala euh, état moo changé wala lu neex waaye def moom moo fi commencé am nañ dugg ci réseau sociaux yi ci internet bi YouTube yi sit nangam point nangam wax na lu raw li li ñu bind tribune wax na lu raw li ñu bind euh, journal Le Quotidien kenn wooluwu leen tey ma toog en tant que journaliste nekk ci métier bi mu néew mu bari xaw naa ci yàgg ma war a jàkkaarloo koo xamee ni mosul nekk journaliste comédien la moom lañ ko xamee may joxe information mu may wedd man si samay information yi may joxe te ba may joxe information wala ba may wax man sama xalaat en tant que chroniqueur ci lu ma loo xamee dama ci basé wu ci ay information dafa am fu ma ko sukkandikoo laataa ma koy wax def naa samay recherche dem naa ci ay nit woo naa ay nit jox nañ ma ay information te du luñ ma jox rek ma génne ko sax lu ma xam lu ma saytu en tant que journaliste ba pare lay doog a mën a wax ba bu ëllëgee peut-être néew ma ni j'ai j'aurais raison de mais peut-être li nga may bàkkee ci tort nu ndaw lay doon ma jàkkaarloo ko xamee ni tu animateur wala tu es comédien minimiser wu ma seen seen seen seen liggéey de mais ñu war a bokk plateau ma nekk journaliste jàng ko nga ñëw war a war maa weddi man ak yow ñuy wedd ñuy ñuy werante man ak yow et on le voit dans tous les plateaux aujourd'hui Corée da cay mës a wax. Hmm. est-ce que Corée dégg ngeen ko mu ne télé nangam wala rajo nangam journaliste bi am na sañ-sañ waaye kii di animateur ba wala kii di nangam amul sañ-sañ bi tu vois des animateurs qui sont présentateurs tu peux être animateur présentateur amul problème mais journaliste yi bind jox la nga présenté rédaction mooy bind jox la nga présenté. waaye nga toog ci plateau daje koo xamee ni mosu ko jàng mosu ci dugg mhm. école mosu ci def absolument rien du tout yow source ya ngay am ci information moom amu ko ngeen war a werante ci plateau correct da mhm. cee mos a wax mhm. foofu laa more meree ay correct ak ay euh, structure yu ni mel parce que tey jàpp naa ni lii nii yëpp bu amee c'est d'abord eux te bu ñu war a responsabiliser ñoom lañu ñu war responsabiliser d'accord ba Baye Abdoulaye yaa ngi koy wax sànq par ak ces réactions